mbégte gu yaato yaatu di feggoo ki yéen mbokk net bi TV Sénégal saa waxtu wi jote ñu ñëw ànd ak yéen ci xibaar yi ruusee ci bi réew mi ak la ca gën a fës xibaar yi dañu koy door rek kàddu yi nga xam ni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall yëkkati na ko. Euh, jëmale ko ci wàllum politique ku jege ka nga xam ne rek moo ci gën a fës di Ousmane Sonko noonu la ko libération xëyee tey euh, mu mel ni kàddu yu président de la république Macky Sall euh, ca ba muy jokook ndaw ña ca Tambacounda dafay mel ni kuy léebu ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko libération ni mu ko xamle kàddu yi le président Macky Sall mu ne la relève nekkul ci ñi nga xam ne dañuy passé seenu temps bi yëpp ci tëgg ay bool mu mel ni fi ne. li nga xam ne moom moo di concert u bi nga xam ne coalition bi di yeewi askan wi daal nañu koy programmer le 31 décembre le président de la république Macky Sall gis na ci boppam waaye tam dafa mel ni rek moom it daal dinay teg ab stratégie ngir la nga xam ne moom di ab discours am ni ki ëllëg ci ngoon ci bu 20 heures euh, jotee. ci politique la ñuy euh, desandi ginnaaw coalition bi di yeewi askan wi seen stratégie bi ñu teg. ngir rek dal di amal ab concert casserole ni ki ëllëg ci euh, si guddi euh, bu vingt jotee muy euh, méngoog jamono ji le président Macky Sall di amal ab discours am daal dinañu boycotté bépp plateau télévisé la tax ñu def ko nag bokk na ci li nga xam ne rek moom mooy li méngoog li ñu teg bu boobaa bu ñu ko deful dafay contradictoire boo demee rek ba jël dogal ne du ma déglu nit kala muy wax war ngaa mën a tëj sa gémmiñ ba doo ca wax loolu rek moo nekk fi ne dogal bi ñu jël ba bépp invitation boo xam ne rek daal dinañu leen daal dinañ koy sàkku ci ñoom ci ab plateau télé wala ci site internet dañu koy rek daal di euh, boycotté euh, ci politique Mariam Sodo Ndiaye Euh, mi fi nekkoon ab député ci treizième législature gi ñu ràññee woon ko lool ci assemblée nationale ba waaye tam mu doon amal ay débat yu ama am solo ginnaaw bu mu demee woon ci liste Osez l'avenir euh, àndoon ci ak maître Aïssata Tall Sall ginnaaw si euh, te quatorzième législature gi ak législative yi weesu dafa demoon rek daal di lëkkook aar Sénégal bu Thierno Alassane salle moom Marème Soda moom moo daal di amal ab publication ci euh, Facebook am di xamle rek ne daal di nay démissionné euh, fi nga xam ne moom moo di euh, l'avenir fi nga xam ne moo di oser l'avenir ak aar Sénégal. bu sat tal Sall euh, ngir assemblée de rupture gi nga xam ne rek moom la daal di fësal fi ne nag la mu namm wala la mu ju dëgmal pour daal di koy def wala fa mu bëgg rek dem euh, yeeyu ca yàbbi waaye lu mu di doon rek boobu lépp xibaar moom ci boppam moo ko daal di partagé euh, ci page Facebook Khalifa Babacar Sall. àdduna ci taxawaayam waaye itam position bi nga xam ne ci la nekk euh, ngir waajal présidentielle yu deux mille 2024 ginnaaw bu mu amee émission euh, ca Sud FM mu di émission bii di l'émission grand format euh, ca la rek daal di xam ne ne dara du ko tere rek nekk candidat fii léegi 2024 te bu nekkee candidat dara du ko teree rek daal di jër réew mi la mu wax nag dafa xaw a daal di am ak gëllëngoo seggu ci am wute lool ak li nga xam ne moom moo di libération ak li mu xëyee tey a jëmale ko ci candidature Ousmane Sonko fileeg 2024 mu mel ni Ousmane Sonko moom law yoonam gën a leer par rapport ak Khalifa Ababacar Sall ak ki nga xam ne moom moo di Karim Meïssa Wade mi nga xam ne kenn tegagu ko rek ay gët moom Khalifa Sall nag dafa mel ni wax ji nga xam ne wax na ko dafay woroo lool ak li nga xam ne moom la journal bi xëyee tey waaye tam ak jixi jaxa ak nga xam ne am na ci xelu sénégalais yi ginnaaw bu ñu leen bëggee woon rek delloo seen légitimité ngir mën a bokkaat ci lépp loo xam ne rek ab droit de vote la bu ñu leen war a mën a delloo Khalifa Ababacar Sall nag wax ji mu wax dafay mel ni comme si am na lu mu yëg loo xam ne rek sénégalais yi yëgaguñu ko ci fileeg présidentielle yu 2024 ci lu ñeel ab candidature am Pape Alé Niang état ma ngay gën a rek gël ngose journaliste d'investigation bi fi ne rek la nga xam ne moom moo di wérgu yaramam saa bu ñu xëyee rek muy nekk loo xam ne luy inquiété ay mbokkam la waaye cette fois si le journaliste defa rek daal di euh, bañ ñu daal di koy fajati maanaam lank ne benn médecin dootu ko faj ndax ci ndoorteel dafa waxoon ne benn médecin bu du am médecin du ko faj waaye lu ni mel la daal di xamle ne bëggutul kenn ku ko génne hôpital delloowaat ko fa nga xam ne moom moo di euh, prison lam ca jublu nag bokk ci di xeex li nga xam ne moom moo di libération euh, ci bi ñu ko jàppaatee ba léegi ca ëllëg sa wala ca ginnaaw ëllëg sa rek ca la waat li nga xam ne moom moo di euh, grève de la faim boobu boobaag tey nag mi ngi bëgg a mat rek ayu bés ak fan yu ca toftal waaye ba léegi ay avocat am ña nga cay yéey rek ak yàbbi ngir ñu daal di koy bàyyiwaat waaye fi ne bu ñu moytu rek dañ ko ñaaw comme ni ko yenn ci kilifa yi waxe woon ah, bu ñu génne wut Pape Alé bi ba mu mujjee rek dal di ah, jur leneen su boobaa dina nekk ab catastrophe nationale ginnaaw ni ko météo waxee woon taw ëgg ba mu doon lam-lamee ci journalam ni ki euh, bërki démb taw boobu nag mujj na am ni ki démb ci euh, ngoon euh, mu nekk taw boo xam ne gaaw na lool waaye itam ndox ma xaw naa rek dal di dëgër mu nekk lu jaxal nit ñi béykat yi nag dal di nañu am jàqare ci taw bi nga xam ne moom moo door démb bu ko continuer rek dana leen jural ay jafe-jafe ba ci sax sàmmkat yi nga xam ne seenu jur su boobaa rek dañu lekk ñax goo xam ne taw ëgg moo koy andi li nga xam ne moom moo di boobuleem ñax buñ ko lekkee jur gu ci baree bari dana rek dal di faatu waaye météo ci boppam ak la nga xam ne jotoon na ko rek daal di génne ci yooyu lay prévision amoon nañoo jàpp ne taw bi daal jeexagul. nit dof kàddu gi nga xam ne yëkkati na ko daal di koy euh, tontu Khadim Samb Khadim sàmb mi nga xam ne euh, démb ba léegi rek foo tourné gis ab vidéo am ci bépp réseau social euh, ndax wax ja nga xam ne wax na ko ci la kanamu président Macky Sall di xam le ne du ñu jox réew mi koo xam ne dafay dàmp lu ju guddi réew mi jëloo ko ci ay kàcc ay fen ay tappale waaye tam di dàmp lu ji guddi dal di koy xamal ne dem na ci kilifa diine yëpp te ñëpp jox nañ ko seen kàddu lu ni tax na nit dof nag dal di ne Khadim sàmb moom warul sax di wax ndax ci saa su waxee dafay wax loo xam ne rek ay jaxasee lay doon luy taalum réew waaye itam di wax ay wax yoo xam ne ay wax yu nopp mënul dégg la ci ab communicateur traditionnel ni dof wal ko ci ne ko fii nga waxoon ne président bi dafa war di rey di tëcc nga génn baalu ak tey ji ngay waxaat wax joo xam ne rek rafetul ci sa gémmiñ kilifa wala ab communicateur traditionnel ay waxam dafa war a nekk luy ñaw wala luy fekk diggante bu yàqu mu dox ca ba jàmm am ca waaye kàddu yi nga xam ne moom nga yëkkati saa su nekk defoo loolu di féewale ak xàjjale askan wi ñu daal di jeexale xibaar yi ak naqar ak tiis bi nga xam ne monde sportif daal dinañu koy am mu di génnuk àdduna ak Pelé euh, nekkoon ca euh, Brésil ñu ràññee woon ko lool ci àdduna wérngel këpp ndax jaloore yi nga xam ne def na ko euh, ci wàllum football à l'âge de 17 ans rek la dal di jël coupe du monde ba ca Brésil ginnaaw nag 82 ans la daal di am soog a génn ni ki démb Euh, boobu lépp xibaar nag fi ne métti na képp koo xam ne rek yaa ngi yëngu ci wàllum euh, football wala sax lépp lu ñeel wàllum tàggat yaram ndax référence la ci ndaw ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey euh, ba sax doon na wax ne jàpp na ne Mbappé sax mën na kaa rek daal di remplacer ci li nga xam ne def na ko ci ay jaloore feebar bi ko faat nag cancer du colon moo ko rek daal di faat Brésil nag président ba dafa daal di rek décréter trois jours yoo xam ne deuil national la ngir daal di màggal demo mook ki nga xam ne moom moo di l'international boobee di euh, Pelé waaye itam euh, Brésil ñëpp moom la ñuy rek dal di euh, waxtaanee ku ci mel ni Sadio maane Eto'o ak yeneen joueur africain yi nga xam ne ñoom itam def nañoo jot nañoo def ay jaloore ku ci nekk rek daal di na ngay génn wàccee sa bataaxal waaye itam jaale brésilien yi rawatina. ay a euh, famille mbokk yi ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun ci kanam tuuti daañu dikkaat ak yéen ci beneen jotaayu xibaar jaa ngeen jëf.